أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu ñu jeexalee istuwaaru nuux alayhi salaam tey ci kàttanu bul yàlla tabaraka wa taala ñu ngi jël istuwaaru nabiyillaahi alxuut alayhi salaam عندما نجى الله جل وعلا نوحا عليه السلام ومن آمن معه من المؤمنين عاشوا زمنا على التوحيد والإيمان ولم يكن بينهما كافر واحد keroog bi nga xamante ne borom bi tabaraka wa taala musal na yenent yàlla nuux alayhi salaam yàlla muccal ko moo ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëmoon ba yàlla rëccal leen ca gaal ga musal leen ba ñu teer ca place ba ñu teer ginnaaw loolu Nuux ak njabootam dund nañ jamono bu yàgg ci kennal yàlla ci wéetal yàlla ci imaan ci jamono yooyu amul fenn fu ñu seetlu wala kenn ku ñu gis ngay bokkaale yàlla amul benn barab bu ñuy bokkaalee amul kenn ku ñu gis ci xeet woowu yàlla musaloon ca gaal ga kuy bokkaale yàlla ñoom ñépp benn umma lañ woon yàlla dong lañ gëmoon yàlla dong lañ doon jaamu li ko waral nag mooy bëri na mooy laqad shahadu kayfa najahumullah من الطوفان فازدادوا شكرا لله وعاشوا على طاعته li tax jamono boobu yépp ñu dund ci kennal yàlla di ko wéetal gëm ko mooy dañoo jàkkaarloo gis jëhran yàlla nabal seeni noon ñoom yàlla musal leen ci gaal kon loolu day dolli yaqiin xam nga man dina ma jaaxal trop ma dégg ci Sénégal ñu ne ay nit yoo xam ne ay kilifa diine da leen a feeñu wala ay kéemtaan da leen a feeñu te duñ tuub dafa jaaxal kéemtaan lan lay jëriñ bu la yàlla wanee kéemtaan pour nga gëm ko mais bu la wanee kéemtaan ba pare ñu ne da ngay changé nga ni non non lan njëriñ la amati xoolal ñii bi leen yàlla wanee gaal gi ak kéemtaan yi ci nekk. yàlla towal asamaan suuf génne ndox ba ndox mi laalante gaal gi di daw ci ndox moo xam ne yàlla moo nu nettali ndox mi nu mu toll ci ay vagues fii mawjin kal jibaal montagne yu toll ne vague yi étage géej ci kaw comme montagne ay vagues yu toll ne montagne moo tax loolu yokku leen ñoom ñu gëm yàlla loolu daf leen a yokk waaye loolu daf leen a yokk ñu sant yàlla ñu dund ay jamono ñoog ay seen doom ci ngëm yàlla ci wéetal yàlla parce que kat ñoom am nañ lu ñu waaraate dafa am ñaari waaraate waaraate goo xam ne dañ la koy wax nii mais am na goo xam ne dañ daan jàkk sa bët dong mu doy la waar nga waaru kenn du la wax waaru ñoom nag dañoo gis ñaar yëpp dañoo nekk ak ab yonent bu leen waar ay ay atti atti at ay téeméeri at ñu lànk ba ñu gëm yàlla ñëw mbugalam dóor leen dóor bu métti loolu doy na moo tax si yonente ba waxaatee nit ñi dégg ñoom nitu nuux ñu dund ci loolu gëm yàlla wéetal ko jalla wa ala buur bu màgg bi te kawe waaye ginnaaw xam ngeen ni jamono bu yàgg kilifa ya dee maam ya dee baay ya dee boroom xam-xam ya faatu ñu fàtte ndénkaane yi fàtte ndono yi ñu donnoon ci seeni maam ñu fàtte ndénkaane yonent yàlla noo mooy yàlla daal di commencé soirée yi commencé xumbal yi commencé fóoral yi commencé rab bi commencé simb commencé ñu commencé di caaxaan ñu delluwaat di bokkaale yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba leen seytaane taaralee moo tax mission yonent yëpp ci kaw suuf mooy jëli fi bokkaale parce que bokkaale réew mu am rek musiba moo fay nekk bokkaale baaxul te mbooleem tey umma islamiya li tax nit ñi mënuñu jaamu yàlla kese mooy bokkaale moo tax yàlla da ngay dégg sax insaala ñu ne la yàlla kese dafa ri tax foog yàlla ak il faut yàlla ak leneen ginnaaw ba ñu fàttee ndénkaane seen yonent Nuux seytaane taaralal leen bokkaale surtout nuux yi daje nañ ñu ne ñun kat bëgguñu fàtte sunu ndénkaane maam ginnaaw ba ñu yàlla musalee ci tuufaan ma yàlla defaral nu gaal gaal gi musal nu léegi nag il faut ñu wut ay statut yoo xam ne dañ ciy def sunu maam yi sunu melokaanu maam yi pour sunu leen xoolee rek sunu xel dem ci yàlla wax naa ne leen bii passé ma ne leen Sénégal sooy wax nit ñi histoire yonent yàlla Nuux Sénégal moom mooy teg teg Sénégal ngay ñëw dugg kër rek bu laajte sax xoolal miir yi rek nga xam waa kër gi lan lañ xoolal saal bi rek saal bi rek boo dee tëll ci saal bi rek nga xam waa kër gi fu ñu bokk ndax ay photo am na ñoo xam ne boo dajee ak ñoom ci mbedd yi xam fu ñu bokk ndax ay photo am boo ñoo xam ne boo leen nuyoo xam fu ñu bokk am ñoo xam ne suñu waxee nga xam fu ñu bokk ci mbax na yi sax da nga koy gis mbax na yi ku nekk ak sa mbax na wax naa leen benn bis ne ku nekk dafa am sax laa ilaha illa allah ay façon laa ilaha illa allah kër gu nekk ak sa laa ilaha illa allah loolu moo am Sénégal loolu musiba la am nañ ci yàlla musal ginnaaw loolu ba mu amee ñu commencé di bokkaale yàlla mbir mi di continuer ñuy bokkaale di moy ñu dem bay jaamu xërëm di jaamu estati borom bi tabaraka wa taala nag fa arsala allahu jalla wa ala ila haulai alqawm nabiyihi huudan alayhi salaam ci la yàlla tànn huud alayhi salaam kan mooy huud man huwa huud alayhi salaam huwa ibnu abdullahi ibnu rabax ibnu jaarut ibnu aad ibnu aws ibnu iram ibnu saam ibnu nuux alayhi salaam kon moom sëtam la huut papaam mu ngi tudd rabax papaay kooku mu ngi tudd jaarud papaay kooku mu ngi tudd aad loolu moo tax mu am relation moom wuut yàlla yónni ko ci waa aad gis nga waa aad seen tur maam boobu lañ jël tudde ko seen bopp muy aad ibnu aws ibnu iram ñëw na ci alquran yàlla ngeen dégg yàlla naan irama zatil imad iram oustaz man dama wax ne laa ilaha illallah bi may dégg fii bu ko yonent bi proposé woon ba amata dina barakallahu fiik jërëjëf waaw dëgg la de dëgg la de barakallahu fiik jazakallahu xeyran dégg ngeen lool mu ne laa ilaha illa bi am fii ànd aki sabat ànd aki ndënd ànd aki pooj ànd aki fecc bu ko yonent bi proposé woon waa Màkka ñu nangu ko mais laa ilaha illa bi mu leen indiloon dañoo bañ te kat daf leen wax ne bu ngeen ko waxee ngeen moom arab yépp su ngeen ko waxee ngeen texee ñu lànk ñu ne waxuñu ko kon xam nañ lu ci nekk Hud alayhi salaam dafa bokk ci qabila yuqaalu laha aad dafa bokk ci famille boo xam ne ñu ngi leen di woowee aad wa kaanu uruban ñoom ay arab lañ woon am na ñeenti yonent yàlla yónni ñeenti yonent yooyu ay arab lañ duñu ay israélien ñoo na ci hadis bu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon nettali aba zar radiyallahu anhu wa arda bokk na ci yonent bi muy nettali aba zar nee na ko am na ci yonent yi minhum arbaa min al arab huut arab la woon saalix arab la woon Shuaib arab la woon wa nabiyuka ak sa yonent kuy sa yonent arab la woon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñeenti yonent yii ay arab lañ Hud kon ci ay arab la ko yàlla yónni woon yaskununa al ahqaaf ñu ngi dëkkoon place bu tudd ahqaaf lan mooy ahqaaf hiya jibaalu raml ay montagne la yoo xam ne montagne yu suuf la dafa am ay façon montagne am na montagne yu xeer am na montagne yu suuf waa aad nag ñu ngi dëkkoon gox boo xam ne mu ngi tudd ahqaaf ay montagne yu suuf ñoo ko ëmboon wa kaanat bil yaman loola nga ca woon ca yaman bayna al umaan wa xadratu al mawt bi ardin mutallaatun ala al bahr mi ngi nekkoon ci diggante amaan fu ñu naan amaan ak xadratul mawt ci yaman diggante ñaari dëkk yooyu fala ahqaaf nekkoon waaye bokkoon na ca lañ daan xamee dëkk bi mooy dëkk bi dafa sëpp ndox dafa sëpp géej géej la tiim kon ay montagne la yu ñu dëkk montagne yi tiim géej montagne yi tuddee leen ahqaaf wa kaanu kasiran maa yaskunuuna alxiyaam zawaatul amida ak jaxma bokk na ci force bi ñu leen xàmmee doole yi ñu amoon dañ daan samp ay tànt yu ngand yu ponkale di ci dëkk ñoom waa ahqaaf lan moo doon seen dund dund gu neex la woon dund yaataa yimbe dund gu nëtëx aqaamat aad bil ahqaaf ma bayna al yaman wa amman nekkoon nañ ñoom waa aad di dëkke woon ahqaaf barab boobu diggante yaman ak amman fataratan min alzaman fi ragadin min alxayaat nekkoon nañ di dund dund gu neex dund yaataa yimbe jamono bu yàgg yàlla tabaraka wa taala may leen ay xéewal yu doy ay xéewal yu ne gàññ ay dex yuy daw di ball di génn ci xeer yi suñu mbayee mbay mi nangu àll bi daal di naat lépp verte garab yi meññ tool yi am fruit mbay mi di jur ñu nekk ci loolu ñu tabax ay château amoon nañ ñoom ay ponkal lañu woon daawuñu tabax dañ daan ñëw fekk benn montagne xeer lu mu ngand ngand ngand buñ ci yentoo buñ ci yendoo balaa ngoon ñu def ko dëkk ñu def ko ay kër ci lañ yett néeg ci montagne yooyu yett ci ay lal seeni kudd sax ci xeer yi lañ koy yett seeni bool lépp luñ daan dundee ñoom ñoo ko daan liggéeyal seen bopp parce que ay nganda lañ woon ponkal lañ woon ñu am doole borom yaram ñu amoon yaram lañ yàlla lim leen mayoon néew na lum ko may ci àdduna waaye loolu yépp nag delloowu leen ci yàlla tabaraka wa taala gis nga yàlla bu la mayee xéewal alquran wax nañu wa amma bi ni'mati rabbik fa haddis yàlla bu la mayee xéewal santal yàlla mais doomu aadama yi dañuy réere lu baree bari yàlla tabaraka wa taala xéewal yu mu leen di defal ñu réere ko sàggane ko nekk ci seen lu leen neex doomu aadama yi sax dañuy dem na ba bu ñu amee dootuñu tal yàlla bu ñu ñàkkee rek la seen xel di dem yàlla ni gis ñuy julli ku feebar commencé di julli dem jàkka di kii mais bu poos bi amee dara rek sa xel dootul nekk ci yàlla dootoo julleeti dootoo demati jàkk loolu moo tax ngeen di gis jàkk Sénégal yi borom alal yi di ci néew ñi takk ndomb tànk yi di ci néew xataa sax kilifa diine yi nga xam ne dañoo nganda nganda nganda nganda duñ dem jàkk cinq cinq cinq julli yi duñ ko dem jàkk ak néew dama leen di wax ni seetlu leen ko da ngay dëkk ak benn xalif général ci këram ci saalam lay jullee moom du dem jàkk loolu yëfu muus muuslu la dem sa kër soppi sa saalu kër daf ko jàkk te jàkk ji nekk ci koñ bi bu ñëpp defee seen saal jàkk kan mooy dem jàkk parce que lu tax bëgguñu di bouger lu bari bëgguñu nit ñi di leen gis ci mbedd yi lu bari te xoolal yonent yàlla Muhammad da daan dem marché da daan fóot da daan dëbb da daan raxas ay dàllam da daan sax raxasal boppam yenn saa yi mu raxasal boppam boppam boppam bi mu raxasal ko boppam mu diviser ko en deux takk fi benn jubb takk fi benn jubb daal di xajj digg bi sallallahu alayhi wa sallam bañ egsi ci moom insha allah mbokk yi ñoom waa Aad sant ñu yàlla ci xéewal yooyu mu leen defal waaye lan la jur mooy ñu weddi yàlla ñu wut ay xërëm di ko jaamu di sant xërëm yi ñu delloo xërëm yi njukkal ñu fàtte borom bi tabaraka wa taala saa yu leen lor laalee musiba ñu daw dellu ci xërëm ya au lieu ñu daw dem ci yàlla mooy li am fii nit ñi bu ñu am bu ñu amee problème dañuy daw dem ci bàmmeel yi di ñaan ñi dee ñi ana yàlla ana yàlla lan la yàlla wax ci quran wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib yàlla nee na bu la gaa yi laajee fan laa nekk ne leen damaa jege kon yàlla soriwul kon boo amee problème demal ci yàlla jullit boo amee problème weesuwul mu dem jàpp julli ñaar raak sujjóot sujjóotam bu mujj mu ñaan yàlla li mu soxla yàlla daal di koy may yéex na diggante yàlla ak nit amul amul amul distance amul ku fi nekk ba nga naan eh diw jottali ma yàlla déedéet comme ni ko nit ñi di waxee damay jàpp ci diw diw jàpp ci diw diw jàpp ci diw diw jàpp ci diw ba ñu egg ci yàlla loolu dafa sori yàllaa ngi nii jàpp ci rek direct ah wala yàllaa ngi nii bul wiiri bul dem ci kee mu lay yóbbu dafal direct ci yàlla tabaraka wa taala loolu lañ la sant mbokk yi bu ñu amoon problème dañuy daw dellu ci seeni xërëm di sàkku ci ñoom bu ñu amee lu ñu tiit ñu dem ci xërëm yi yàlla nag daal leen di bëgg a gindi yàlla bëgg ñi néewoon doole yàlla mayaat leen kàttan yàlla bëgg bakkan yu yàqu woon yi ñu defaraat ko yàlla bëgg réer gi amoon ñu dindi ko yàlla daal di yónni ci ñoom yonent bu bokk ci ñoom chaque jour xeet wu nekk yàlla bu leen daan yónnee yonent day tànn ku juddoo ci réew mi ku ñu xam ndeyam ak baayam yàlla tànn ko yónni ko beneen bi mooy yàlla mësta yónni yonent lu dul mu nekk xale xam nga lu tax yàlla day bañ yónni benn paa paa ak jeunes yi du ñu mën a communiquer ndax dafa am génération yu fiy jaar yu nekk ni sunu paa yi am na yu leen bëri yu leen raw am na yenn langage yoo xam ne paa yi xamuñu ko am na yenn milieu yoo xam ne xamuñu ko ñoom seen jamono passé na yàlla day yónni ndaw loo xam ne day xam dëkk bi ci li ñu ne mu ñëw di wax ci lool pour mu mën a communiquer ak ñoom moo tax ngeen dégg alxuraan ne ibnu abbas nee na yàlla mësta yónni yonant lu dul mu nekk ndaw yaxyaa bi ko yàlla di yónni bu ndax ku ndaw la isaa bi ko yàlla di yónni mi ngi ci berceau nekk liir muhammad bi ko yàlla di yónni 40 ans la am ibrahima dégg ngeen ñu ne sami'na fatan yazkuruhum yuqaalu lahu ibrahim lan mooy fatan baatu fat mooy jeune dégg nañ benn jeune bu nekk ci quartier bi moom moo daaneel yàlla yi gis nga kon jeune la yàlla musta yónni yonent mu nekk paa yonent yëpp ay jeune lañu woon parce que message bi moo war a jàll te jeunes yi ñoo ko mën a jàllale moo tax su nit ñi jàppee ne islam diiney paa la bala may jaamu yàlla loolu ngay dégg ci jigéen ñi xaar man de bala may muuru xaaral ba ma mag nga dégg jeunes yi bala may dem jàkk xaar ma nekk non non non actuellement nii ah ah non non mais xaaral tuuti attends attends attends ba kañ boo fi dee looy wax loolu da ngay dem safara dimanche passé dama demoon benn ngénti ma daje fa ak benn ilimaan ñuy waxtaan am benn wax bu mu ma wax mu ne quartier bi mu dëkk jàkk ji muy jiite dafa am benn waay bu fa dëkk waaye ji dafa jékki-jékki benn jour mu ñëw ne ko imam suñu morgue bi est-ce que am na kees mu ne ko déedéet amul kees de mu ne dama laa bëggoon jox xaalis nga jënd kees ndax morgue bi war na am kees ndax ku dee ñu dugal ko ci wala mat man ministre laa nga bàyyi ma ma jox ma ñaan la ndigal nga may ma ma defar kees ilimaan ne ko kon jaru nga may jox xaalis xaalis boobu nga ma waroon jox demal nga jënd ko ay bant nga defar kees bi waa ji dem jël xaalis bi jënd ay bant defar kees gu rafet waaye xam ngeen lan moo garaaw mooy waajooju lañ njëkk dugal ci kees gi waaw da koo defar ba pare dee moom lañ ci njëkk dugal xal gis nga yàlla wallahi moom lañ ci njëkk dugal dimanche bi passé la ma ko imaam bi doon nettali dimanche matin gis ngeen yàlla ku nit nit nit jaamu yàlla rek moo ko jig nit leneen jig ko ci kaw suuf dul topp yàlla soo toppul yàlla rek foowee nga sa dund xamoo kañ ngay dee yàlla moo la fi indi yàlla bi mu la fi indi est-ce que tàggoo na tàggoo na tàggoowul bu lay jëlee fi est-ce que day tàggoo waaw kon jeex na kon bul sànq sa mission yow doomu aadama borom bi tabaraka wa taala mu ne yàlla yónni ci ñoom benn yonent boo xam ne seen làkk la dégg wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi yàlla musta yónni yonent yonent bi ñëw nit ñi nekk ay olof mu ñëw di wax français mais kon communication bi du dem maadaama nit ñi olof lañ yonent bi lu mu war a wax nit ñi olof lañ yonent bi lu mu war a wax nit ñi tubaab lañ yonent bi lu mu war a wax nit ñi araab lañ yonent bi lu mu war a wax moo tax bépp yonent bi nga ñëwee làkku réew ma moom nga wax yonent yàlla Muhammad bi mu ñëwee màkk fekk màkk ay arab lañ lu mu wax arab huut mii bi ko yàlla yónnee mu ñëw fekk ay arab lañ arab la doon wax ak ñoom wa yuxaatibuhum bi uslubihim mu leen di wax ak seen méthode seen système bi ñuy doxalin mu ci wax ak ñoom wa yusiduhum ila xaaliqihim mu leen di jubanti pour yóbbu leen ci seen borom wa yubayina lahum safahat ibadatihim mu leen di leeralal li nga xam ne dañ koo dugal ci jaamu yàlla bi te bokk ci gis nga yonent yëpp bu ñu ñëwee dañuy fekk déviation bi am nit ñi au lieu ñu dem ci yàlla comme dañoo bàyyi yàlla dem ci leneen yonent boobu bu ñëwee day jéem a jubantiwaat nit ñi pour leeralaat leen ana lan lañ war a def ana lan lañ war a wax ana lan lañ war a jaamoo yàlla loolu nag yàlla da ko def wa rahmatan minhu wa karaman yàlla daf ko def rek ngir mbaaxam yàlla yónni na ay yonent yu dul jeex jox leen ay mission pour lan pour nit ñi mën a jaamu yàlla sori safara dugg aljanna mais yàlla doon na doy dong mu ne jaamu leen ma ku ko jaamu mu fay la ku ko jaamuwul ëllëg mu fudd la ku ci mun dara kenn mais xoolal yàlla mu ne jaamu leen ma loolu doyul mu yónni ay yonent yonent yi ñëw du ñu fàttali ah bàyyi leen caaxaan bàyyi leen fo jaamu leen yàlla topp leen yàlla def leen liñ leen sant sori leen liñ leen tere yuhud bu mu ñëwee lan la leen wax ibudullaha ma lakum min ilahin xayru jaamu leen yàlla gis ngeen ibudullah wéetal leen yàlla bu leen ko bokkaale ma lakum min ilahin xayru na ngeen yëg ne amu leen benn yàlla benn borom bu ngeen war a topp ku dul yàlla gis nga doomu aadama xaj baax na wala dafa bon xaj dafa baax wala dafa bon xaj baaxul waaye nag nit war na koo roy ci benn jikko xaj nit war na ko roy de rabu àll la de rab la mais am na benn jikko bu baax nit war na ko roy ban jikko la ku ko xam ma may ko cadeau ban jikko la ah toppaati da lay topp ku muy topp boroomam xaj du topp ku dul boroomam soo ko génne woon nit ñi li ñu bari bari bari bari boroomam rek lay topp du topp kenn nit it war na topp boroomam warul topp kenn ku dul boroomam utal xaj nga bàyyi ba naaj bi tàng nga yóbbu ko marché day gis boroom yàpp yi gis nangam nangam gis lu ne waaye gis nga même bu demee ci ñooñu yàgg-yàgg day tourné ñëw ci boroomam boroomam rek nit nit dafa war a roy boroomam dafa war a topp boroomam boroomam rek Nuux bi mu ñëwee lu mu wax jaamu leen yàlla bu leen jaamu kenn ku dul seen boroom wa lamma malaa rukaamul jahiliya arjaa al ard araada al xaq jalla wa ala an yuzhira al ard an yutahira al ard min adarasi shirki wal kufr ba dëkk ba feesee dell dell dell ak ceddo xam ngeen ak ceddo mooy lan mooy comme li am Sénégal ceddo ceddo dëgg moo fi nekk nit ñi jigéen yi di sol col yu bon góor ñi wàcc seen tubéy yi bënn seen nopp yi jaxase seen kawar yi musique guddi musique bëccëg sàngara foo fecc parce que dem ngeen dégg président ci rajo bi ci télé bi naan eh, woo directeur général yëpp naan leen bëggatuma ku fi fecc ndax fecc mi baaxul dégg leen loolu maanaam Sénégal dañuy dund ceddo ba yàlla gisee ceddo gi bëri ci xaw mu aad yàlla namm koo setal génne kéeféer mu bëgg nit ñi delluwaat ci leeraayu tawxid ak ngëm yàlla ci la yàlla préparé Huud wa kaana rajulan minhum mu nekk góor gu bokk ci moom min awsatihim nasaban ku bokk ci seen askan wa akramuhum xulqan ku gën a baax ci ñoom jikko wa arjawhum aqlan ki gën a yaatu xel wa arhabuhum sadran gën cee yaatu dënn gis ngeen yàlla ñi muy taan dañoo am ay dañoo am yu ñu leen di xàmmee dañoo am yu ñu tanee ña ñu nekkal yàlla du fekk koo xam ne dafa gaaw a mer mu koy yónni su ñëwee ne jaamu leen yàlla nit ñi ne ñoo bañ mu ne commencé ñàngal déedéet yàlla day yónni yonent bu yaatu dënn koo xam ne même boo ko fekkoon mu toog nga saaga ko dafa lay wax baal naa la soo ko dóoree pes ko ci lexu ndeyjoor mu jox la lexu càmmoñ gis nga yonent yàlla Muhammad benn waaye fekk na ko muy nelaw waa ji yee ko yor jaas ne ko man yamnauka min nii ku la mën a musal mu ne ko yàlla waa ji tiit jaas ji wadd yonte bi for jaas ji ne ko ku la mën a musal mu ne ko baal ma yonte bi ne ko baal naa la waa ji daal di tuub dugg ci lislaam bu doon yow noo koy def da nga koy gor jaase bi mu dee day xoola yonent kon borom bi tabaraka wa taala bu yónni yonent day xool ku bokk ci famille bi ku rafet jikko ku am xel ku yaatu dënn yàlla tànn ko tabaraka wa taala yónni ko ngir mu nekk ku ñu wóolu ci mission bi koo xam ne moom mooy nekk borom daawa bi ndax amaana ci yaatu gi mu yaatu dënn mun gi mu mën a muñ yaatu gi mu yaatu xel ci lay sauver ñu baree bari parce que day xam ñenn ñu nekk nu ñu leen di woowee ñenn ñu nekk yan méthode ngay def ba mun leen orienté mais bu ñu yónnee yonant bu tàng jër yonant bu gaaw a mer yonant bu amul xel yonant bu amul xam-xam mission bi du dem day échec gis nga yii jikko yonent yi am jikko yi la jiitu réew yi war a am mooy am xel mën a muñ yaatu dënn am xam-xam parce que réew du lu tuuti lii nii warul manqué ci président président du gaaw a mer président dafa jikkoom dafa war a rafet président dafa war a am xam-xam président dafa war a yaatu dënn yaatu dënn lan laa bëgg wax ci yaatu dënn mooy dënn bi nii dafa war a yaatu li ñu ci bëgg a wax mooy lu ñëw rek mu xejoo ko lu ñëw rek mu xejoo ko lu ñëw rek mu denc ko lu ñëw mu denc ko loolu mooy yaatu dënn borom bi tabaraka wa taala mu ñuy nettali ci alquran keroog ba huut taxawee nag yàlla yónni ko yan baat la njëkk a génne moomu huut ci gémmiñam mu ne yaa qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru afala tattaqun surtout araf aya 65 borom bi nee na hut taxaw na ci digg pénc ma ci digg dëkk ba ban dëkk ban dëkk laa ilaha illallah laa ilaha illallah ah abadan ban dëkk ahqaaf nu taxaw na ci digg ahqaaf ne leen ee yéen nit ñi ba ñëpp ne teg mu ne leen ibudullaha kennal leen yàlla jaamu leen yàlla ma lakum min ilahin gayru amul benn borom bu ngeen war a topp di ko jaamu ku dul yàlla afala tattaquun lu tax du ngeen ragal yàlla lu tax du ngeen ragal yàlla ya qawmi hadihi al ahjar allati tanhitunaha summa taabudunaha wa taljawna ilayha yéen samay nit xoolal xeer yi ngeen jël yatt ko ci seen loxo nga gis ku non allahu akbar nga gis ku photo photo foto ko ba pare wala nga jënd foto bi dem yóbbu ko ñu orneel la ko cadre la ko nga takk sa dënn yow yaa ko jënd xoolal ki yor yattukaay yatt benn statien ba mu rafet ba mu nuru kilifaam mu teg ko ci kanamu armoire am du xëyee di ko fomp di raay nuux huut loolu la njëkk a dàq yéen nit ñi xeer yi ngeen yett photo yi ngeen di takk di ko cadre naka ngeen koy defee ak seen loxo ba pare summa taabudunaha ngeen koy jaamu wa taljawna ilayha ngeen ciy làqatu ngeen di làqatu ci loolu nga xam ne yéen a ko defar ak seen loxo maa xataruha est ce que xam ngeen danger bi ci nekk wa ma nafuha ban njëriñ moo ci nekk wa ma dararuha yan lor ñoo ci nekk ah innaha la tujlabu lakum nafaan wala tadfau ankum charran lii ngeen di jaamu du leen indil njëriñ du leen dàqal lor te loolu war na leer nit ñi lu tax chaque jour may joxe misaal Sénégal parce que loolu mooy tax xissa yi di ñu jëriñ tey Sénégal problème yi ñu am crise bi ñu nekk nga xam ne mënuñoo am énergie gaz bi dafa yokk dund gi métti yëf yi cher jafe ah mais ana photo yi photo yi lu tax lu tax changé wuñ ko lu tax lii ñuy woote wu fii naan Sénégal jàmm rek moo fi nekk ndax nangam ak nangam mi lii ñu nekkee nii jàmm la lu tax amul benn changement bu photo yi def ak esthétique yi lu tax esthétique kilifa diine yi seen photo yi nekk ci biir dëkk bi ñu xasar kër goo dugg am na fa mbedd yi ñu ko dessiné lu tax changé wul dëkk bi normalement dafa war a changé waaye yàlla war na rus ñooñu xool leen ma ne ah Sénégal de wax dëgg yàlla xaaral ma yónni gis ngeen. Irak moo ñu ëpp ay mag yu baax Irak Irak xam ngeen Irak moo ñu ëpp ay mag yu baax tey jii bi ma mujjee xool oto bi dafa mel bi ma mujjee xool télé bi dafa mel ne gis naa ay 400 morts Irak xaw ma Pakistan su ma juumulee xoolal Égypte tey bi may mujjee léegi ñëw bi may mujj suivre information yi am na 500 personnes yu blessé tey tey xoolal Afghanistan li fa tëdd ci ay nitu yàlla xoolal Irak imaamu Ali fa la tëdd imaamu Xuseyn fa lañ ko suur ñooñu nekk ak yonent bi deretu yonent bi te jàmm amu fa. kon mbir mi du ay question nit de du ay kilifa du ay na mbir yi jaamu yàlla la yéen ñi lu ngeen def rek seen bopp ngeen ko defal in ahsantum ahsantum li anfusikum tilka ummatun qad xalal laha ma kasabat yéen ñii wala kum ma kasabtum wala tusaluna amma kaanu yamaluun kon yàlla yónni na huut mu tàmbali di leen wax yi ñuy def te jaaduwul ci dëkk bi pour ñu bàyyi ko pour jaamu yàlla mu leen muy tourner xel yi xanaa bëgg leen yàlla baal leen mu leen jaamu yàlla moomu kenn yàlla moomu nga xam ne moom dong lañ war a jaamu moom dong moo war a nekk boroom moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko naka ngeen di bàyyee yàlla topp leneen te yàlla moomu moo leen bind di leen wërsëgal yàlla moom moo leen dundal yàlla moom moo leen di rey fi mu nekk nii koo ne ku la bind mu ne koo ne ku lay dundal mu ne koo ne ku lay wërsëgal koo ne ku lay rey boo ko ne nañ jaamu yàlla mu ne non dañ xaar la ci kanam nag xaar tuuti quoi gis nga makkana lakum fil ard yàlla moo leen saxal ci kaw suuf wa anbata zara yàlla moo saxal mbay mi nji mi yàlla moo ko saxal wa basata lakum fil ajsam yàlla moo leen may yaram ponkal yi ngeen nekk ah laa ilaha illa allah ngand gi ngeen ngande bu leen yaakaar ne alteeru moo leen ko may ak naan fonde ak di naan ay comprimé tidit yàlla moo leen ko may wa iyaakum da ngeen mooy ta ndikku ci bokkaale yàlla wa badaralakum fil an'am yàlla tabaraka wa taala moo leen meññal ngeen am jur gu bari kon mbokk yi fa aminu bihi na ngeen gëm yàlla wahzaru an taummu alal xaq mooy tandiku leen gis dëgg gumba sénégalais yu bëri dañuy gis dëgg mais dañuy ragal a topp dëgg parce que dañuy ragal a wéet parce que dëgg dafa wex dëgg dëgg dafa metti ñu bëri bëgguñu dund dëgg yàlla nee na indil naa leen dëgg mais ñu bëri bëgguñu dëgg fi mu nekk nii da ngay gis ndeysaan nga génn benn waay dajeeg yow asalaamaaleykum ah gis nga li wallaay li ngeen di wax yëpp dëgg la li ngeen di wax yëpp dëgg la mais lu tax doo ko jël li ñuy wax dëgg la ba pare nga ne nga doo ko jël bu ma fàtte ñaan nag li may dëgg rek dëgg ngeen nekk ba pare yow yaa ngi ci leneen waaye léegi dëgg lu muy jëriñ fa maza baada al xaq illa dalal ku bàyyi dëgg rek yaa ngi ci caaxaan te ku bàyyi dëgg dem ci caaxaan ci safara nga jëm kon julli dinañ jël dëgg ne naka ngeen di gisee dëgg ngeen gumba bañ a jël dëgg wa ukaabiru fi llah ngeen di rëy rëylu ci kanamu yàlla loolu moo tax tey fa yusibakum ma asaaba qawmi nuux li dal waa nuux dina leen dal saa yi ngeen bàyyee dëgg yàlla gi saa yi ngeen bàyyee njubal yonent bu yàlla yónni ci yéen li daloon nitu nuux yi dana leen dal lépp lu leen yàlla dig ci mbugal yàlla dina leen ko defal qaala zalika huud huud wax na leen loolu wa huwa yarju an tasila kalimatahu ila amaqi nufusihim fa yuminuun bi mu koy wax mi ngi am yaakaar ne ñii muy waxal message bi jàll na affaire bi romb na nopp yi romb na tempa yi dugg na ba ci xol yi yaakaaroon na ne tourné na xol yi waaye ndeke li borom bi tabaraka wa taala di wax rek ci histoire Yuusuf léeg-léeg nga gis ay nit jàpp ne ñu ngi xoole ñu ngi dégg fekk dañoo silmaxa tëx message bi jàllul sénégalais yi da ngay wax ak ñoom ndeysaan nga defe ne message bi jàll na bu ñu génnee dellu ci lu ñu nekkoon da ngay gis nit ku dee ñu nekk di sang néew bi ci morgue bi nga gis ñaari wéeru fële naan ah ta ñeenti jabar yi mu bàyyi ñetteel bi xale la de loo ci xalaat nañ dem suuli ko ba ñëwaat ñaa ngi naan man de sama kër gi temps yi problème mu ciment la am ñii ngi naan waaw wala affaire u àdduna rek caaxaan léeg-léeg sax ndeysaan ñu suuli ko ba ñëw nga gis ñu teg baraada ataaya yi ay groupe groupe ñee ngi ataaya fële ñee ngi ataaya feeñe ku nekk ñu ngi wax te nee nañ dañuy sarax kat léeg-léeg ñu ne ma dañu am benn sarax mu ñëw ci sarax yi toog di xool rek di jàng ndeysaan ñuy xool xool ndey joor gis jaagar jaagar yeeg leeration beeg ñiy jaay ak dégg nga de kii nee na am na dëj boo xam dañ doon xëccoo naan aw ma kanet laa yoon a dëgg da ngay xool da ngay dem ci dëj yi ngay jàng toog di xool ñu ne dañ nee nañ kat dañuy sarax dañuy koy ñaanal yàlla nga toog ni di xool nday sax nga gis jigéen ñi di jaagar jaagar ak yére yu bon yi ñee nekk fee ñee di wax fële ñee làng fële ñee di sànni fële xaalis ñee yor kaar ne di bind diw indi na jaxal ñaata ne 10 000 diw ñaata la indi ah kooku yaay mbim dee 15000 laa ko jox mu may indil 1000 francs bi bindal ma turam ki dee rek a perte ki dee moom ma ngi ci armeel ya xamuñu ci lu mu ne mbokk yi na leen yàlla jubal insha allah fii la ñuy yem ba dars bi di ñëwaat ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu